pour union ak maam Jibi ak bokk yi seetaan Eye Africa TV ci jotaay bii di Good Morning Africa. defee Amadou euh, ñu daal di koy tàmbaleeg euh, ñaari xëtu yéenekaay yu ñu am tey benn bi di standard beneen bi di Foroyaa euh, ni ki koy defee rek saa bu ñu xëyee dañuy xool li nga xam ne moom la yëglekaay yi daal di fësal ci seen xët yu njëkk yi tey standard bind na xët yu am solo ci xëtam yi ak Foroyaa tamit naka noonu su ko defee rek ñu dooree ko suñu xët wu njëkk boobu dafay nekk tey. ak standard standard moom it gis ngeen ko mu ngi bind tey euh, xët yu ama am solo waaye nag su ko defee Amadou ñu comp ci as daal di koy baaxee askan wi mu ngokk euh, gis ngeen ki nga xam ne moo di Modou Lamine Faye doon ab Gambien bu toog foofee ca Amérique xelam màcc loolu nag ci wàllu yoon ak yoonal moom nag mi ngi xelal nguur gi ne faaw ñu defaraat seen euh, ni ñuy waxee maanaam seen kàddu yi maanaam communication bi faaw ñu indi ay stratégie maanaam yu sell yoo xam ne dafay jaar yoon su ko defee rek ñuy mën sàmm li nga xam ne nag mooy seen seen warma ak respect bi nga xam ni nit ñi dinañ leen ko xoolee ci réew mi waaye nag ci international community bi ndax nag nee na eh, li fi xewoon ci Adama Barrow bu muy génnewoon doon amal interview ak ki nga xam ne eh, moo di Malick Jones ba wax ci wàllu audit report wax jooju nag ñu bëri jàpp ne eh, nam ko wax ji demeewul noonu ba ñuy génnaat di weddi kii nag sëñ Modou Ndiaye ci ki nga xam ne mooy njiital kaaraange gi wala moom lañ dénk li nga xam ne rek moo di bànqaas nguur gi ngànk kaaraange gi ba mu génnee moom it wax ci wàllu li nga xam ne mooy doxalintu réew mi ngir Sénégal respecté ko ci loolu bi ko standard bindee indiwaat na ay coow ba weddi amaat ci nee na nag loolu bu ñuy nguur gi di wax di weddeek yu mel noonu day tax ba askan wi dootuñu leen gëmati ak it nag bët bu ñu leen di xoolee ci biti muy international community mu ne loolu nag dañ ci government bi daf ci war a jug ci nu mu gën a gaawee ngir saafara yooyu mbir amadu ñu jàll ci beneen euh, lu të xam dafa yàggul GATS am na njiit lu yees maanaam am na euh, DG bu yees moom nag ci Abdoulaye Siley wuyu yàgg na fa liggéey na fa jaar na nag ci barab yu bari ci biir euh, kër googu di GATS ba tey jilee mu xëy doon seen njiit li moom nag bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ci atum ñaari junni ak juróom-ñaar la fa ñëw maanaam 2007 la daal di dugg ci kër googu di GATS ba tey jile nag mu xëy nekk seen njiit li wuutu ki fa nekkoon ginnaaw nag ay weer. ñuy laam-laamee kan lay doon ak kan la euh, waaye nag tey jile xam naa ne bu yeboo maam ji bi génn ci xelam ndax am nañ euh, boos bu yees ñu dem ci mu ñu dem ci beneen euh, maam ji bi gis nga ko noonu njiitu réew mi Adama Barrow muy rakk daal dina ndokkeel magam rakk ji woo na mag ji daal di koy bind ci xëtam euh, ci xëtu Facebook am euh, di ko ndokkeel ci démb bi ñuy màggal li nga xam ne mooy seen juróom benn bi ñu moomee seen bopp ak ñett muy 63 euh, li independence anniversary ci fa nga xam ne mooy réewum Sénégal njiitu réew mi Adama Barrow nag moom posé wu na ci daal di bind ci xëti Facebook am di ndokkeel magam di Macky sàll waaye nag di ndokkeel réewum Sénégal ñaanal jàmm ak dal ba tawit di wax ne mi ngi leen di jox kàddoom ne diggante réewu Sénégal ak Gambie jàmm ak lëkkaloo euh, gi fi nekk mooy daal di rek wéy ci diggante ñaari réew yooyu rawatin nag ñoom ñaar ñi nga xam ne ñooy njiit yi nga xam ne ñoo ko war a daal di jëmmal muy Macky sàll ak njiiti réew mi Adama Barrow ñu wax ci leneen euh, Amadou ni ki démb coow lii ak ñu leen di ndokkeel ci liggéey bu rëy bi nga xam ne jiyaaree euh, def na ko muy euh, kuréel gi nga xam ne moo war di wala mooy saytu wàllu galak muy taxe ci réew mi ginnaaw ba nga xamee ne nag daal dinañu dajale taxe bu toll ci 1.5 billion ci weeru màcc mu doon loo xam ne guléet muy am ci taarixu réew mi ci ab weer ñuy daal di rek dajale lu toll noonu ci galak moom nag nee na loolu daf koy delloo njukkal ñi nga xam ne ñoo di liggéeykatam yi maanaam staff yi ndax nee nañ dogu ak seen farlu moo tax ñu daal di mën a def loolu ba tey nag di leen gën a ñaax ñu woy di amal liggéey bu mel noonu Amadou ñu tëj euh, standard ubbi Forea mu ngi noonu Forea moom it xëy euh, bind ci xëtam wu njëkk xët yu ama am solo su ko defee rek dañu koy dooree ak euh, benn ku ñuy waxal sax mu ngi noonu toog muy Omar Cissé di njiital ki nga xam ne moo di mbootaayu dawal li nga xam ne mooy mbootaayu yaale gi maanaam Gambia Transport Union ak it nag ñi nga xam ne dañ ubbi seen mbootaay muy rek tuddee ko li nga xam ne rek mooy Drivers Association atte bi nag daal dina daanu nag ay weer ñi ngi woon dem ak ñëw ci attikaay bi ki nga xam ne nag mooy jos jayte li mu xam ne nag mooy ñi nga xam ne euh, ñoo di kuréel gi ngànk yàlla gi ci réew muy Gambia Transport Union mën nañoo xajoo maanaam dëkkaale ak ñi nga xam ne ñoo di drivers association te nag euh, benn na bu mu ci waaye waaye lu ñu dul nangu rek mooy ñi nga xam ne ñooy drivers association ci wàllu queuing system bi maanaam rang bi nga xam ne dañ koy waral di def ci wàllu bi loolu nag ñi koy régler mooy ñi nga xam ne rek ñooy kuréel gi ngànk wàllu yàlla gi muy Gambia Transport Union waaye lu dul loolu nag ndax loi bi san maye na su ko defee yeneen i association mën a am ci biiru loolu waaye nag li nga xam ne nag mooy bu mag bi muy general euh, transport union bi boobu nag ci wàllu queuing system bi ñoom ñoo koy daal di organise maanaam ñoo koy rek daal di euh, doxal Amadou. Amadou ñu wax ci beneen xët mooy sunu xët bu mujj tey ci yëglekaay bi de mooy ki nga xam ne nag mooy AIC ki topp ci chairman bi muy vice chairman bi di Joseph Koli moom nag mi ngi daal di soññ la wax yëpp maanaam candidate yëpp ñu daal di respect li nga xam ne mooy tëralinu AIC bi muy seen campagne code of ethics ngir ñu bañ koo salfaañee ngir jàmm mën a am ci seen campagne ndax nag nee na bëgguñu gis benn la wax dem foo xam ne dañ sa morom wala sa naataango bi nga war a jonganteel dafa tay foofu photom yow nga daal di koy tàyyi tay fa sa boss nee na loolu mënul nekk li mën am mooy bu fekkee gis nga ñu tay foo xam ne da nga fa bëgg a tay sa photo mën nga ko def ci wet gi wala nga wuti feneen foo def di ko tay loolu du yoon taw duñ ko di nangu kon mi ngi ñaax ñu di respect li nga xam ne code of ethics si seen jamonoy campagne bi te rek sàmm ko sàmm wante it li nga xam ne mooy euh, boobule rek su ko rek am euh, te it ben jafe-jafe du ci rek daal di am amadou du la yëglekaay yi xëyoon ñu daal di koy tëj